yaa maalikal mulki yaa man jalla al xaadil irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xaadil irham jamii al waraa góor ilaha illallah la la la la La la la la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 la la la la la la لا الله لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا حول ولا حول لا حول ولا حول la la la la Allah la la la ilaha illallah la ilaha la la la daan ko Baba la mbalooy faal yërmande dimbalooy faal ci turu Serigne Moustapha Fall Abdou Sakour ak ci turu Serigne magam ju baax jee Serigne Khalifa Fall na xam ni ñoom ñooy yónnee nuyoo bii nuy nuyoo xay na seen ndongo li koy jottali rek mooy sëriñ Abo Ndiaye mii di jëwri nii Touba Brescia ak sëriñ Diop Baye Fall mii ñu toftel ci moom ndaw la ñuy ñu yónni waaye noo ngi ñaan kon sëriñ bi ci sa ndigal ñu yëkkati kàddu yi nga xam ni moom la sëriñ Moustapha Fall Abdou Sakor yónnee fii jëmm ngoo ko nag ju ñuy sant joo xam ne waxoon naa ko ni ko sant ko war na ndax day mooy caatum Cheikh Ibrahima Fall ci xilaafaam gi tey jëmm joo xamante ni mboolem ñim bokkaloon maam Salaay Fall joxoon nañ ko cër ndax di ko xoole seen jur wu tedd wa te wax naa ne nag baat bagaas yi baati nii fii Cheikh Ibra Fall bàyyi woon yëpp dagg na de ah. yi baatin yi nga xam ni Cheikh Ibra da ko fee bawoon bi nga xamante ni yàlla dogal na mu làqu ni ci sunuy bët njabootuk Cheikh Ibra Fall gépp dañoo daje teg ko ci loxol suñu Abdou kor ni ko lam ca sañan yow rek yaa ko sañ kon Fall Njaga bagaas yaa ngoog mu téye koo ko sañ-sañ ak mayeg boppam ak fit woo xamante ne ànd na ak jom ak liggéeyal Cheikh bu wér magam yëpp nag di ko xoolee seen baay bu tedd ba Cheikh Ibra Fall kon nag bu sëñ bi wootee ni nanu sant sëñ Abdou Sakkour jël bis bi ci boppam def ko bisub fajub aajo moo ma ko waxoon moom Cheikh Moustapha muy toog moo ne ma bis bi day li ma yéene jàmm ñi te mënuma ko kenn par kenn ma di leen ko beral laa bëgg a woote ñëpp fekk ma ci ma faj seen faj ci seen ajo kon bis bi tudde naa ko bisub fajub aajo kon ku fi teew sa njort war naa rafet dafa wax ne nag sëriñ Fallou Fall mi nga xam ni moom la bokkal sëriñ Abdou ndax maa wax si saa ni ko koo bokkal sëriñ Abdou Sakkoor Fall laq nga ngërëmam te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët waxoon naa ko ni mooy borom Touba Linguère mooy borom jàmm ju bari ji mooy borom ree ji moom Cheikh Moustapha Fall toog tey borom sañ-sañ bi nag ndax wax naa ko ni ko bari na lu ñuy wax ni danga sukk na fi sa kanam nit di ko ñaanlu. Fall Ndiaga ba nga ko koy jox booba ñaanoo ko ci sa poos nga ko làmb ndax man fekk naa seex bu Sakor Fall mu rëkk moom ba ca dënn ba ni giñ naa ci yàlla ni man Abdou Sakor mii toog lu wan ci Cheikh Abdou Fall lépp a ngi ci moom lépp a ngi ci man mii toog mu wax ko waxtu tàkkusaan jëm timis man Abdou Sakor mii toog lu wan ci Cheikh Abdou Fall mu ngi ci man nañu ko ko daan laaje doo nga laa gisul ku ma ko ni laaje kon nag nu bëggoon tey jii moom Cheikh Moustapha bi mu nee bëgg naa dimbali jaam ñi waaye Cheikh Abdou Sakkour daa am ku ko fi toogal muy Cheikh Fallou Fall di magam dib sëriñam dib xalifaam nee na nag mu ngi sàkku ci jaam ñi képp ku ko yàlla man loo fa nga toog liggéeyam bu réy bii na nga ca dugal saw ñaq looy am na ko ci dugal ñaq woowee bu ngeen jëlee mbaxana yi ba dugal ci lu looy am mu dugal ko ci bu kër geenu dajale ko teg ko ci loxol suñ Moustapha Fall ah wax fa dëgg-dëgg yàlla mu jottalil nu ko nag sangam bu tedd boobu di sunub sang ñun ñëpp nu ngi leen kenn ku nekk di euro la wax ne sëñ bi nee na ku ko mën na ko ca def barki maam Cheikh Rafal jar na lu ko ëpp waxoon naa ni kat sant sëñ Abdou Sakor jar na sol say dàll weñ di dox ba mu xar ndax jëmm ngoogu joo xam ne ñëpp ko sant barki maam Cheikh Rafal kon nag sëñ bi euh, ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ni bis baa ngi doog a tàmbali waaye lu waay soxla na ko ci fas lu waay soxla na ko ci fas barki maam Cheikh Rafal kon nag jazaakumullaahu xayran sëriñ bi yaakaar naa kàddu gàngoog li ngi ciy waat nga jotali ko dongo yi rek ñëpp déggandoo ko Fall Ndiaga bi waaw waaw sëriñ bi nee na am na lu ñuy dégg ci réew mi waaye yàlla na fa yem yàlla buñ ko teg suñ bët yàlla nañ koy dégg képp te mu yem ca waaye nag kon ba mu jeex tàkk te sëriñ bi nee na yàlla na ko yàlla jeexal kon nag mu ngi noonu ah, nu nu ngeen koy nan ko ko saxoo rek fal ndega na ko eh, ku baax ku tedd ki baax ku tedd ki waxe woon eh, dafa waxoon ni sëriñ Mouhamadou lamin bi nga xamante ne yàlla dogal na ñuy dégg lañ doon dégg ci Afrique Euh, sëñ Sidi Mokhtar Mbacke daa waxoon ni ku ko man ku nekk na nga saxoo xasida gi ñuy wax allahu ayyun samadun wa baaxi subhaana auso kanafin wa waaqi wa nahnu fi kanafi ilmanihi min kulli charrin wa asan sanihi mustamsikina bilqiyaasi ahmada xayral anami muntaan wa mubtada man xalaa fi samanil wa baaxi amanna allahu min albalaayi ñun nag kon yoola loolee yàlla nañ ca dégg roy kon nag sëñ bi nee ku ko dégg rek mu ngi sàkku ci barke maam Cheikh Rahim Fall yi loolu ñuy dégg yàlla buñ ko gis mukk ci àdduna waaw Fall Ndiaga ok waaw jërë ngeen jëf kon nag euh, nu nu nu waaw àddiya nañ ko teg ci loxo yi yët ko sëñ bi sëñ bi doo na jot li kàddu yi mu ni dolli waaw ñu teg ko sama loxo man waaw baax na kon nag kon wutal leen ma ay mbaxana rek ñu dajale ko fii léegi euh, bu ko defee yët ko sëñ bi kon nag jisaakumullaahu xayran na rajaskat yi jóg mbaa ñu delluwaat ci tur yàlla wi rek noonu ñu ko doon waxee ak sa bisimilah. yaa maalikal mulki yaa man jàll al xaadil irham jami al wara yaa haadi al rada yaa maalikal mulki yaa man jàll al xaadil